seytaane man maa dem ba jël sama décision xam ne mënatumaa nekk ak moom te sama décision moom jël naa ko ba pare te bu ma ci delluwaat. juróom-ñaari at nekk sa moom sa xel di nekk si beneen bi. parce sama teer. jaay lépp lu ma amoon. di force parce que laa soxla si moom amul nag ñu ngi ko soxla wàcc mbokk yi xarit yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sant gis ngeen ko nag yéen seen biir émission Tangana Show nee naa leen émission bi nga xamante ne yéen a safoo tey nag gis ngeen ko la fois passée benn xale bu góor ak benn soxnaam danoo ñëw fii nga xamante ne moom mooy ci plateau bi nara wax li nga xamante ne moom la ñuy seen difficulté ak li nga xamante ne moom mooy xale bu jigéen bi wax muy ne dafa bëgg li nga xamante ne moom mooy divorce tey nag xale bu góor bi moom moo woote lu waral mu woote tey ngeen koy xam léegi-léegi sox sëñ bi na nga def ba mang ngi si jam maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateur yi tay nak ma la wol won ndax dama teud teud problème bi metti mo lolou mënatumaa nelaw ma ne li faa moo woo la wax la leneen lo xamanteni amna ci te nit ñi xamuñu waaw lolou waral wote lolou leer na nañ soxna si na nga def ma ngi fi maa ngi si jam bu baax ma ngi si jàmm maa ngi sant yàlla bu baax dégg nga waaj wax ndaxte dafa ne carrément ne dafa am li nga xamante ne moo moo nekk ci bopp bi mu bëgg ko leeral askan wi mu bëgg ko leeral ñi nga xamante ne moom mooy téléspectateur yi ñuy seetaan wala mbokki internet ndaxte affaire bi jox na ko chagrin mun naa wax sax loolu ndaxte c'était riche la fois passée c'était riche en émotion tey nag waa ji nee na dafa bëgg ñu toog leeral yenn yi waaye yow mi euh, moo tax ma woo la pour que ñu mun a waxtaanee loolu lépp ci ndekk ak teraanga ndaxte soo gisee nag ma woo moom woo ma man tam ma wola ndax te des fois jigen dina def li nga xamantene ne du ko bëgg wala mu am nu mu doxale su tëddee nalaw xel mi da kay yeddaat motax ma wola ci ndek ak teranga pour ko ñu mëna waxtani affaire bi mu mëna tegg ci yoon wala sax mën ngeena a sax te ki sé ndax te yàlla rek xam ndax te seytaane dafa bari doone te fu mu xadi rek lay dugg rawati na na waji machallah li nga xamantene ne wax nga ko ne nga ma dooruma ma saagoo defuma lu ñaaw defuma lu bon waye machallah yarna ma yor ma ni góor war a yaree jigéenam kon boog c'est-à-dire être nee naa est-ce que du seytaane moo jaaroon sa bopp yi soxna si loo wax ci kàddu yooyu. du seytaane man maa dem ba jël sama décision xam ni mënatumaa nekk ak moom. te sama décision mom jël naa ba paré té du ci si delluwaat. lu waral nga ne sa décision doo si delluwaat soxna ci ndax ndaxte légui jamono ji dafa nek li nga xamantene dafa doy war gor ñu bari ñong japp sen dom sen jabar di dor japp euh, sen dom jidle yi duñ leen tek dans de très bonnes conditions mais ki ni machallah lepp lu war ci yow def nga ko mom la doon wax sank tay dama bëgg ndax ndaxam yow mëno seetaat sa sa cadeau xoolaat sa bopp bu baax a baax yee yee yeewaat sa bopp comme ni nga koy waxee pour que rek nga mun a dellu ci waa ji ndaxte kii ma gis nii jàpp naa ne ku la bëgg la. moom moom pare naa ci moom ndax doom jooju baayam ñëw na récupéré na ko. Mhm. te aw amatuma lenn loo xam ne rek dinaa ko defati ak moom. Mhm. moom moom divorce kase laa soxla ci moom amul leneen nag moom lu ma soxlawaat ci moom mu jël yoonam ma jël sama yoon mu jeex tàkk nag. doy waar yow soxna si ñun ñoo ngi ñoo ngi seral mais yow dafa mel ne da ngay da nga bëgg daal def ni teg pression bëgg rek mu tàng tàng tàng mais soxna si lu waral loolu tey waa ji est-ce que amul loo xamante ne def na la ko te ñun ñii yëguñu ko wala lu xew ndaxte ëllëg dafa dara sóor ndaxte démb tamit neexoon na. ñu waxante dëgg ndaxte yéen saay sax ngeen baal ma si kàddu yi daan ngeen nekk yéen ñaar kenn du leen ñëkk yéen ñaar kese kenn du leen ñetteel mun daan neex lu lu baax a baax a baax yooyu noonu moment yooyu est-ce que yow doo ko xalaat tamit. musul neex. neex ndax heure boo ma a nekk ak moom sama premier amul laa daan xalaat. ma wax la ko tey na nga xam ko bu baax. Euh, def leen nànk def leen nànk mbir maa ngi commencé nag euh, di metti ndaxte wax ji nga wax nii dafa nekk. ah waaw voilà taxawel nii ndaxte wax ji nga wax dafa nekk li nga xamante ne dafa doy waar ah mën naa ne sax loolu ndax am du njaaloo kii see yéen ñi nga xamante ne yéen ñu seetaan wàcc leen commentaire ci suufa suufa suuf yow soxna si li nga wax dafa rëy parce que da nga ne da nga bëgg wax kon yow saa yoo nekkee sa borom kër bii nii nii monsieur Cheikh kon da ngay bëgg wax ne yow sa xel bi day nekk euh, ku nañ wax nañ waxante dama dama damaa dem man maa dem ba xamante si ni def du yoon motax tax ba mu ñëwaatee ma nek ma préféré nek ak mom que di continuer di nek ak mom di njaaloo tamit. juroom ñaari at ngay sëy moom sa xel di nek ci benen parce que man bugguma ko musuma koo bëgg situation moma bolé won ak mom wax ji loolu la. kon da nga bëgg wax kon da nga kon da nga jappé won wëru wéeruwaay. wa mën na nek tamit mën na nek dal kon yow la mo lu dugulon ci ndax ndaxam du intérêt. du intérêt mom moma forcer bopam boppam. moom moo ma damaa dem a dem damaa wax a wax a wax ma dem ba sonn ba maar xamatuma amatuma fu ma sës. ma ne naa jéem a nekk ak moom loolu juróom-ñaari at day na waar nee na juróom-ñaari at moo ngi sëy jëkkëram nekkal moom si benn lal teewul xalam moo ngi nekk ci beneen góor loolu day na waar xaw ma nag la si islaam mën a wax loolu yëm na ma sëñ bi metti na ndaxte ni muy ni muy ni muy réagir la ñuy wax dëkk fa yàlla man waa ji mënatuma ko sa xool. ndaxte sama xol franchement ndaxte ndaxte dinuy wax góor ñu góor ñi mais des fois ñun jigéen ñi dafa am li nga xamante ne ne diñ koy kiiwee daal man daal métti na sëñ bi di la masawuwaat bu baax a baax dégg nga sa jabar bu wax nee na juróom-ñaari at moo ngi sëy ak yow teewul xalam ak xolam moo ngi nekk si beneen góor loolu métti na waaw man daal loolu laa ci mën a xam yow loo ci wax gis mhm. lii mu wax nii bu doon dafa yem ci metti kese ñu mën a wax waaye man kii jaay naa sama terrain ngir moom jaay lépp lu ma amoon ngir moom. looy wax nii da jaay sa terrain ndax moom kii jaay naa terrain ngir moom ndax bëgg gi mu ko bëgg. ngir mën koo faj moom tey ji bu demee bay nooy. bay dem bay gis keneen man maa tax. sama rein laa jël génne jox ko. mi ngi nii la xëcc la ko man maa ngi sama kaa ngi day waar kaa baa ngi day waar nga ne yow sëñ bi soxna si may ma may ma boo xam moom jàpp si jàpp si may ma may ma affaire bi non affaire yi dafa dafa kii nu mu tëdd dafa yéeme. yow mbete xale magum jëmm bu toll ni yow. jigéen tax ngay génne sa reen di joxe di jaay sa téere ku la man de bu doon man la duma ko def ku la ko sant maa magum jëmm nga xam nga lu baax xam nga lu bon xam nga lu baax xam nga lu bon xam nga lu nekk sa arrangement dañu waxante dëgg. yow day na waar sëñ bi yow nga ne sept sept ans yi nga nekk ak moom sacrifice yëpp def nga ko jaay sa terrain ndax moom ci jakartamaan bi nga doon dawal tey moom mu xeebal la ko nga ne lu lu lu ci gën a yéeme man loolu mosuma ko gis mais soxna si est-ce que xam nga ni ki dana bëgg daf ma bëggoo bëgguma jeex na ma ak moom ko jeex na man mosuma koo bëgg loolu kay na leer si boppam mosuma koo bëgg waaw d'accord léegi yow sëñ bi amour yooyu yëpp nga def ko mu nekk li nga xamante ne man moom franchement je suis émue franchement sama xol bi instant yii nii franchement dafa dafa tooy sëñ bi yow nga ne yooyu yëpp def nga ko jaay nga sa terrain jaay sa alal ndax moom lu gën a cher ci àddina li nga xamante ne moom moo nekk sa organe nga jox ko ko ndax moom te teewul moom loolu yëpp gis ko faq bëtam ci lan ci leneen beneen góor sëñ bi loolu doy na waa Nah, naa ne mënoo wax ndaxte affaire bi moo la c'est normal ndaxte am na ñi nga xamante ne ne jigéen su toogee ba di la ko wax dafa nekk li nga xamante ne dafa metti maa ngi sëda sëy sama góor maa ngi sëy sama jëkkër teewul sama xel moo ngi ci beneen góor nekk na li nga xamante dafa doy doy doy di courage tey sëñ bi euh, papaam ak yaayam laa bëgg a xam ndaxte tey foog ay famem xam nañ ko gis nga papam kilifa la te maa ngi koy nuyu de passage ñu koo xamante ni soutenir na ma ci côté yëpp ba muy metti waaye gis nga moom mii bañu ma ko dara ba ci yaam ji nga xamante ni tey bu daan dem ba natt yi mu bokk nii yëpp ba lii yëpp mën a am sama xaalis man maa daan yëkkati di ko jox papam ànd na avec gi avec gi ci papam ci jëmmi boppam ma wax la lenn saa yu ma toogaan day ñëw ñuy toog di waxtaan ba démb rek a ci mujj mu ne ma sa jabar li mu def teg ko fenn na dellu siwaat delloo siwaat xelam te nit da ngay delloo sa xel sóoraale sóoraale sóoraale démb sooraale démb sóoraale démb ndaxte problème de santé yi nga xamante ne doon nga ko am man mii dama ko doon am ba tax na juróom-ñett juróom-ñaari at yooyu yëpp ñu ne pour ñu amoon doom problème la woon ndax problème de santé yooyu mu am terewul ma ko ci doon soutenir yërëm ko ci di ko ci épaulé gudd ak gudd suba gudde ak bëccëg non amna gor ñu am yërmande rek ate suba ngoon guddeeg bëccëg loolu yëpp ma muñ ko di ko diko di ko jàppale ndax bëgg gi mako bëgg xoola tey lim ma fayé 30 millions motax muy dem dima dima di ma chèque. yow dal alal nga gis. len rek la am ci luma waw alal lañu gis moo ñu neex. wa deglonté len yoroo man dama ro yakko wa soxna si mayma soxna si 30 millions yoy ba jëm ko jëm wa soxna si muy len ma deglu len ma deglu len ma wa ok. déglu ci taxi. wa d'accord jigéen nga taxu ko te jéem anda ànd ak may deglu man ki ma wara bëgg bëgg ngeen dal ma yabo nga def ko sa bopp bi man paré na ci yow de. man pare ko jënd yow dama bëgg dama bëgg ngeen deglu ma ngeen déglu ma ndaxte woowuma leen pour ñu coow pour ñu histoire ndax dama leen woo pour que ñu mun na waxtaan ci njëkk ak teraanga ndaxte problème sëy problème sëy yëpp am problème mais sëy des fois dina am problème bi nga xamante ne njëkk ak teraanga moom moo koy faj du dëgg tey lu tax woowu ma seen waajooju ndaxte foog naa ne mun naa yokk xar mi karaw moo ni comme ni ñu koy waxee fii mën naa yokk xar mi karaw euh, kii mu tëdd moom laa war a wax léegi nag waajooju na moo tax ma écarté ko woo leen pour que ngeen mën na déggoon ko ànd mën na rafet ngeen ànd si jàmm ak salam takaliko tamit mën na rafet bañ a xaste bañ a dara bañ ci am du deug motax ma wax wo leen rek ci njëkk ak tera mais bëgguma ngeen xuloo ndaxte ëllëg seen doom mën na leen seetaan te bis bu leen seetaanee mën na xolam mën na du deug kon bok soxna si xale bi la la anam fu mu nek xale bi mu ngi ak papa mu ngi si jam bu baax. bu ko jur waaw. Mm-hmm. mu ngi si jam man da lenn rek la am ci lu. léegi waji ji waaw lenn am ci lu nga koy wax. mooy bu fekkee moom juboo moo ko fi indi. Mhm. juboo mënut a na fukki si vie mu focus sama vie. mais mën ngeen rafetoo. waaw nañ sekk jàmm rek jàmm ak salaam mun moom jàmm ak salaam laay sekk ak moom ndax defuma loo xam ne moom dinaa ñaawoo ak moom. Mhm. jàmm ak salaam mu jéem a xool viam nan la koy jéem a defee dund dunda man maa ngi dund sama. waa ji est-ce que moom. Euh, lu mu leen lu mu la waxoon est-ce que yow gisagum ci tegagum nga ci sa bët gisagum nga. waaw ñu ngi def ñu ngi doxal ndànk-ndànk mhm. rek. affaire yi mom dank dank la waxon da lay yobbu Europe de wala wa dama yobbu hmm. dañuy dem si papier yi ño paré go rek mais hmm. ñun dañuy dem paré nañ danaka mom dañuy dem danaka kañ ngeen di dem d'ici quelques d'ici quelques semaines rek inshallah ok sëñ bi deñ nga ko néna mom paré na foog dem néna nak mom sékku tak ak yow dara li nga xamantene day ñaaw néna dafa bëgg rek lepp rafet yan kaddu nga ci sall li ma ci teg ndaxte man xamna naa ne li ma ciy teg ku ko bëgg ku ko bëgg li ma ciy teg hmm. mooy ku la jox ndékki

ci ndékki ba da daw ma ñëw fessel biiram mu ndékki ci agn ba waxin la waxin la ci agn ba yeen ñi nga xamantene yeen yéen ñi seetaan waxin la sa agn ba mhm. dafa daw gisuko ma nekkal ko jox ko ba mu suur tay nak le mën tok gisugul reer mhm. te guddi dafa yàgg yo yo yo yo magala yar xam nga xam nga nit di nga nekk ak moom mhm. mu sa xel waaye doo ci bàyyi xel nga nekk ci li nga xamante ni nii mm-hmm. mooy dafa am lu fëkk say bët mm-hmm. loolu nag alalu àdduna bu mu la ko jaral mukk mukk mukk mukk mukk te loolu nag maa ngi koy wax ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi ci loolu mm-hmm. waaw ma bëgg nag mu delloo si xelam bu baax a baax a baax te xam ne ku la dégg ndékki joxu la añ joxu la reer ñëw te guddi dafa yàgg mën naa sóor. mën na rafet kàddu gi nga wax rafet na yow mi macha allah ku la gis xam ne ne yow mi euh, mag moo la yar te mag su la yaree waxi mag ngay wax di nga cax nit ñi donte nit ñi duñu comprendre mais suñu dawalee seen bopp rek rek rek dinañ xam exactement lan ngay wax léegi sëñ bi euh, dama la bëggoon wax ne la soxna si yow yan lan nga koy conseil lan nga koy wax ngir que mu mën a euh, delloo si daal xelam ndaxte jigéen bi ñuy naan matul. wax yoy non olof ñun diñ koy wax jigen matu tay la nga conseil ndax ndaxte temps bi mo ngi jeex te nit ñi ah, moy lool ah man lima ci wax du lenn mo na delloo si xelam ndax aduna alal fay jeex da fay jeex lan mo fay dess bëgg gu dëgg gu sincère ak jaamu yalla ak ngor mo la fay bayyi gis nga nak alal bu taxé nga gore di ba nga faté tay ñew nga mëna baña bañ ëlëk sa ëlëk bo deful nank dana metti ma koy ñaan nak di wax di yedd mu xol ci njabot gi voilà mu xol ci njabot gi gis nga nak jigen dañ koy comprendre ndax ñom suñu sœur lim fi wax ni nak dégg na ko bu baax waye dama koy wax toujours ëlëk lu mu ta Euh, wax ji am na solo daw na yaram ndaxte moom moom sooy mu ko gisee rek sama xol day tooy tooy ndaxte ñun jigéen ñi dañoo war a am compréhension ci ñi nga xamante ne ne moom mooy suñu góor ñi ñu yàlla booleel ñu comme góor ñi tamit ñu amee compréhension ci jigéen ñu yàlla booleel ndaxte ñoom macha allah surtout moom mi ah, soo ko xoolee xam na ne nekk na góor gu am yërmande ndaxte keroog am na ay gestes yi nga xamante ne amoon na fi waaye teewul mu delloo si xelam delloo si woote waat nga xamante ne moom mooy suñu émission tànganaacu pour que rek revenir pour que soxnaam si delloo si xelam loolu jar naa bàyyi xel soxna si lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo mooy moom maa ngi koy ñaanal jàmm ak salaam. Mhm. mu jéem maa bàyyi jéem a xool leneen ndax man maa ngi ci leneen mhm. maa ngi ci feneen. <laughs> Ah, loolu kese la nañ ko waxtaanee tamit. loolu déggoo bàyyi nekk rek nañuy déggante si. jàmm nañ déggante si jàmm waaw nañu déggante si jàmm. yàlla defal ko jàmm. waaw kay njaboot ji xale bi. xale bi moo xale bi moom. bu bu mu ko tudd moom. tey su soxlawee gis waaj. waajan. waaw bu ko soxlawee gis. Mhm. ah moom du bàyyam mu ngi si bàyyam. loolu papaam ay décidé. moom mooy décidé. wàllum bi moom na waaw bu ko jëlul ñu ñu garder suñu si xam naa tôt ou tard dina ko dignitéem jarul ko ndax waaw tôt ou tard dina ko soxla moom tôt ou tard dina ko jarul 30 millions jaru ko mm. waa lu mu jar rek na ko wax ñun dinañ ko lii dinañ ko gérer incha allah mm. yàlla dafa jàmm gis ngeen ko ami et fidèle téléspectateur internaute gis ngeen ko lii lañ leen indiloon seen émission Tangana Show nee naa la macha allah des fois dafay metti lool lool lool waaye des fois ñu wóola ci njëkk ak teraanga mën a waxtaan ak ñoom ñaan ñi ndaxte jàpp naa ne seytaane moo dugg seen diggante kiisee mën na am ëllëgee incha allah dinañ juboo wala rek euh, yàlla mun na indi feex seen diggante kon boog di leen jox dig daje beneen yoon seen biir émission di leen wax rek ngeen abonné wu te ngeen jéem a def commentaire ci suuf suuf kon boog ñoon leen di remercier loolu mooy Tangana show jaajëf